Euh, jamono bi réew mi xaw naa bari ay yëngu-yëngu ci wàllu politique ay ay tension ku mel ne sëñ Saliou di boroom xam-xam di boroom bi jinne ku ne xam na jinne moom yàlla dimbale na jinne ba day xam lu ñëwagut sëñ Saliou lan mooy xalaatam ak lan lay joxe ci réew mi ak nan la war a diglee pour ñi nga xam ne mooy coow li ci wàllu surtout ci wàllu politique beeg tëjaate yeeg yooyu euh, ngir euh, réew mi gën a mucc ci yooyu. waaw jërëjëf xam nga man man man man damay rusatee sax taxaw war ki dem wax naa ko ci média yi ma ne leen damaa rusatee sax génn ne ne ne ab sëriñ laa ndax jamono bii li fi xew am na sëriñ yu bari yoo xamante ne daanaka dañuy wane ne ay sëriñ lañ dañu yàq deru sëriñ yi rek ba tax na kenn gëmatul kenn kenn wóolootul kenn soo déggee ñu ku génne borom jinne yi hmm. jinne jinne kenn du ko moom jinne da ngay làng moom di ko génneel ay sarax mu ànd ak yow di liggéey di la génneel ay résultat mm. waaye benn jinne goo xamante ne da ñëw ne man maa ko moom jinne goo xamante ne ba sa maam di dund mu ngi dund di ànd ak moom ah. sa sa maam dee mu ànd ak sa baay mm. di dund sa baay di dund sa baay dee mu bàyyi fa sa baay daal di ñëw di ànd ak moom nga walbatiku ne yaa ko moom mm-hmm. da ngay nax sa bopp da ngay dee bàyyi ko fi dong góor moomoo ko da ngay làng moom di liggéey ak moom di ko génneel ay sarax moom mu lay génneel résultat waaye sëriñ si nag dañ dul génneel sarax yi dañuy lekk sarax yi ba pare di laaj weexal yi mm, mm. waaye su fekkee comme ci mbiri politique boobu nga wax noonu mm. politicien bu ñëw su mala la sampee di nga doon président man Saliou ci kàttan yàlla ak baaxam feek doonoo président man ak man ak yow la ñu jëflante la ñu war a jëflante ci mbiru am am loo war a yëkkati war ma koo jox téyel ma ko bu dee siiw dinaa la defal bayre bu ànd ak muslaay mm-hmm. yaa bu dee samp dama lay samp ba kenn dootu la mënal dara mm-hmm. sa bopp su méttee jàppal ne borom mbaar mi la waaye du question kuy dox ci àll bi nii déedéet mm-hmm. bu dee politiciens yi ak mbëru làmb yi ak woykat yi amul kenn koo xamante ni di nga ñëw jëflanteeg man te ñàgguma la. surtout woykat yi. barki Seexul Xadim bu dee woykat yi commencé di yuuxu fii li ngay wax neexut sa baat neexut. foo yuuxu ñu ne woo kee de na gaaw a noppi ñëwal ñu déggante man ak yow. di nga yuuxu ñëpp taxaw feek pare woo kenn du dem. Mhm. man maa la wax di nga yuuxu kenn du dem feek pare woo kenn du dem am na jànkat yu bari yoo xamante ne mhm. dañuy jàng ci baas. Mhm. suñ commencé ba téye micro bi barki Seexul Xadim feek dem feek jóguñu ba yëlbu kenn du joge foofu kenn du dem. ba ci woykat yeeg lépp dama lay defal bayre bu ànd ak muslaay ba pare walbati ko samp la loolooy wax ji. kon kon li nga li waxoon naa dañuy jeexal de dafa am lu wax lu am solo mooy ku jóg rek ne man maay borom jinne yi maay toog di wax am ñoo xam ne ni mbir day bëgg a xew sax ñu wax cee ba far juum. loo loo ci ya moo taxit am na ngóor soo xamante ne xaw ma côté fan la nekk ci dëkk tubaab yi. da leen di saaga rek. da leen di saaga rek chaque jour sama doom yi ñëw ne ma sëñ bi xoolal kii nee na diw dina am nangamam am na lu ñu tuddee xam nga waar lañ. waas waas waas. waar. waar waar waar bar mooma ndax chaque jour ñuy leen di fa yóbbu parce que dañuy wax loo xamante ni seen yoon néew ci te wóoru leen te mënuñu ko duñu ay boromi xam-xam borom xam dëgg dëgg dëgg du taxaw naan suba nangam dina am. Mm. dina table déedéet soo mënee defal su amee ñu door nga door a wax mm. waaye doo wax ba pare déedéet. Mm. loolu gëmuñu ko. Mm-hmm. looloo tax am na ñu bari ñoo xamante ni ne dañuy taxaw naan suba nangam waaw. dañ leen di yóbbu foofu nga wax mënuma tur wi. waar waar mu nga noona waar nag du nit maanaam mooy koñ nettali jëf jëfam naka ah, wax loo xamante ni amul waar waar du nit maanaam mooy koo xam dañ ko nettali jëfi naka su naka su dul noonu. maanaam waar nit la <laughs> loolu la de waaye daal xam naa ne moom nañ war nañ jóge ci loolu. football bii nawetaan gii nii. Mm-hmm. kooku ngóor soosu di bàkku rek nga xamante ne naan borom jinne yi borom ah, moom da day moom da li ko dal daa a ñaanal Sénégal di leen ñaanal ba ñu gagné Sénégal muy door a dem man loolu jaaxal na ma lool. yow demoo Qatar nee na daa demoon Qatar di waaye nag wax dëgg yàlla fa a demee Qatar ànd ak suyeer yi ñëw. Ah, moo gënoon mais waajoo nam nag boo gisee moom dafa mel na yenn saa yi day ndamu lool day bu ma Sénégal masa masaan football ba bàyyi day jóg di fecc naan moo dugal moo gagné moo def moo joxe biir bi. waaw xam naa xam-xam bi daa nekk ci tent bi rek. <laughs> <laughs> yàlla baax na sant nañ bu baax nag sant nañ bu baax sant nañ bu baax a baax a baax macha allah xam naa ne daal képp koo xamante ne euh, jëflante nañu ñu fexe rek ba génnee say sarax ak lu mën ci doon ñu liggéeyal la soo gisee résultat loo ñu yéene nga doon ñu koo jox fekk Sénégal jamono bii kenn gëmatul kenn mm-hmm. nit day toog ak nit sax di ñaandu ci moom te fekk gëmu ko day essayer rek ndax daa jaar ci Samba mu nax ko mu jaar ci Demba mu nax ko mm-hmm. gëmatul kenn mm-hmm. na ngay bëggee jaar ci Baye nag pour nga gëm Baye Sall Sëñ Saliou dina la liggéeyal ba nga teg ci sa bët door koo gëm dëgg neexul nag wejji moom gis da cee bokk soo ñëwee nag ñëwal ma génne la say sarax bu dee kilo ceeb la mën na la say sarax kilo ceeb bu dee pomme la wala banana wala wala comme li Serigne si xewal ginaar gu xonq ginaar gu xonq moo am problème <laughs> ginaar gu xonq moo am problème ci ci réewu Sénégal sant nañ bu baax. baax na jërëjëf <laughs> sëñ Saliou kon ñu sant say Saliou bu baax di sant xalil mi àndaloon ci caméra bi ak ñi ko doon assisté ñoom.